fii ci station Ola oyal bi nekk ci yoonu Ndindi bi ci tuuba ubbil nañu leen fii seen épicerie ñu dëppee ko seen boutique Kër Maam Jaara di barab boo xam ne Abdoul Fatah mi moom moo ko fi taxawal di leen baaxee mboolem produit yoo xam ne dangeen ngeen koy teewoo te ngeen ko naa wuti feneen. ngir jege leen ak yombalal leen ñu daan jóge Ndindi ñu daan jóge Guy Mbind ñu daan jóge Konisu Daara Jolof ñu ñëw jege si leen indi leen xéewal yi lépp lu waay yittewoo rek lépp lu waay soxla rek ci wàllu épicerie am na fi lépp doo koy jaay kon mbokk yi jërë ngeen jëf seen bitig Kër Maam Jaara mi ngi noonu Touba route de Daara Jolof en face usine glace kon jërë ngeen jëf mbokk yi wasalaam ba beneen yoon. bi ñuy ubbi seen boutique Kër Maam Jaara sëriñ Abdul Fatah Mbacke moom Cheikh Mohamad Fadal ñëw na fi ànd ak délégation visiter mboolem produit yi nga xam ne moom lañ def ci épicerie bi. noonu it la rafetloo liggéey bu am solo bi nga xam ni Abdul Fatah def na ko. dafa nekk ndaw loo xam ne dafa gëm liggéey waaye di créer ay emploi Cheikh Abdoul Fatah Mbacké Falilou bég lool ci taxawaayam dal di koy ñaanal. noonu it la ko yeneen kilifa yu takk lool defee. ñëw visiter seen boutique Kër Maam Jaara ci produit yu am solo yi nga xam ne moom lañ leen indil. ay produits alimentaire lépp lu jëm ci lu ñuy lekk rawatina yu sedd moo xam boisson la ju bépp meew bu ngeen yittewoo moo xam lait concentré sucré la wala non sucré lait am poudre ay fruits lépp lu jëm ci wàllum charcuterie seen boutique Kër Maam Jaara bàyyiwul dara ci produit alimentaire bu ngeen yittewoo. dañu leen koy baaxee ci njëg yu xéewali ànd ak personnel bu qualifié ubbeeku di leen taxawu ci mbooleem achat yoo xam ne dingeen ko def di leen taxawu ci seen jënd muy Touba muy Mbacké muy fu mën a doon ci Sénégal koo xam kii sa bët ak sa xel may na la ak sa wér ñëwal seetsi ko boo fi ñëwee da nga fi fekk loo mën a nettali da nga fi fekk loo mën a jënd da fi fekk loo xam ne lii dana la amal njëriñ. seen boutique Kër Maam Diarra mi ngi nekkee ci station Ola Oyel bi nekk ci yoonu Ndindi bi ci Touba mën nga ko ak ñoom ci 77 810 52 52 77 810 52 52. ak seen boutique Kër jaara di ngeen am bépp produit bu ngeen yittewoo ci njëg yu xéewale sulman ila